ñu ngi ñëwaat ak yéen ci seen émission al alu wa sahb nekk ak yéen ci téere bu am solo boobu ñuy tudde xeqbatun ci téere boobu ñuy tudde xeqbatun min attaarix ma bayna wafaati nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila maqtali alxusayn muy téereb histoire buy nettali ay xew-xew yu amoon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba juróom benn fukk ak benn bi nuy boom Xuseyn sëtu yonent bi sallallahu sallam ca Karbala <clears throat> ñu ngi woon ci Ali ibn Abi Talib xamle ci moom lu bëree bëree bari ci suñu émission bi jàll tey nag ñu jëm ci ahamul ahdaas fi xilaafati Ali xew-xew yu ëpp solo yi xam ne xewoon na ci jamonoy Ali ibn Abi Talib xam ngeen ne Ali juróomi at dong la def ci xilaafa gi atum trente cinq ci gàddaay gi la ko jël ñu boom ko atum quarante waaye atum trente am na lu ca xew lu ñuy wax maarakatul jamal muy xeex bi amoon ci diggante ñi ànd ak Ali ak ñi ànd ak Aïcha atum trente sept am na xeex bu am ñu koy wax maarakatu Siffin muy xeex bu amoon ci diggante ñi ànd ak Ali ibn Abi Talib ak ñi ànd ak Muawiya ibn Abi atum 38 am na lu ñuy wax mahrakatu nahrawaan muy xeex bu amoon ci diggante ali ibn abi taalib ak euh, ñooñu ñuy tudde alxawaarij muy samba booy yoo xam ni dañoo gën topp <coughs> maarakatu jamal nee naa la xeex bi amoon diggante aïcha diggante ñu àndoon ak aïcha ak ñu àndoon ak ali kooku atum 36 la woon bi nu jaayanteeg ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu bi boomee Ousmane Ibn Affan ay sàmba booy boomoon ko comme nin ko leerale woon jamono jooju nit ñi saxaaba yu baax yi ñëw ci Ali ibn Abi Talib dañuy jaayanteeg moom Ali sax bañoon na waaye ñu ni ko daal yaay ki fi sës yaay ki fi gën yow la ñuy jaayanteel mu doogay dem ca jumaa yonent bi sallallahu alayhi ñu jaayanteeg moom ci jamono jooju nag am na ci ay saxaaba yoo xam ni gisaguñu woon ñu ni dana war a jaayante lu dul ñu lijjanti ñi rey Ousmane ba pare ñu rey leen ñooñu Talha ca la bokk Zubayr ibn al ca la bokk moo tax ñoom ñaar euh, xamoon na ne Ali moo gën a yellu ci xilaafa gi xëccoo woon moom tamit xilaafa waaye liñ doon wax mooy nanu lijjanti ñi rey Ousmane ñu rey leen ba pare doog a ci la ñoom ñaar génn ak ñi ànd ak ñoom ñu dem madi ñu dem Makka fekk ñu ngi woon Medina biñ ñëw màkka fekk suñu yaay Aïcha moom it mi ngi woon Makka ñu ne ko mbir dey am na mooy lan mooy boom nañ Ousmane ibn na ci ñun Ousmane am na àq ci ñun ñu lijjanti ñen ñoo ko rey ñu mën leen a rey ci lan dajaloo ci Makka euh, woo nit ñi euh, waxtaan ak ñoom nit ñëpp ànd ñoom ni daal d'accord nañ ci ànd yeen yéen joxe suñ bakkan joxe suñ alal ñi rey Ousmane ñu lijjanti leen rey leen ci waxtu woow sax ci la Yaala ibnu Munya jugee Basra muy ca Irak jamono jooju Ousmane moo ko yónni woon bi muy ñëw Màkka ak lim indaale woon ci ay euh, matériel ak ay yëpp bi mu ñëwee ñu ne ko boom nañ Ousmane mu jël yooyu yëpp ni def na ko ci biir euh, préparation bi nga xam ni Aïcha ak ñoom Talha ak Zubair ñu ngi koy waajal ci euh, lijjanti kan moo rey Ousmane ibn Affan ngir ñu mën koo faat comme ni ko yàlla subhanahu wa waxe ni an nafsu bin nafs kon noonu la demee ñu dajaloo ñu bari ànd ak ñoom ñi nee na ñetti junni lañ ñu ni ñeenti junni lañ waaye jóge nañ foofu jóge màkka ñu ni fu ñuy dem pour lijjanti loolu ñu ni nañ dem kuufa ndax ñi ko reyoon ñii ñu ngi jóge kuufa ñii ñu ngi jóge Saam ñi ñu ngi jóge Misra kon nga gis ni ñoom jëmmi Ali ibn Abi Talib taxul woon ñu jóg euh, xatal Ali ibn bi Talib ci xilaafa gi nga xam ne da koo jël te yayoo ko tamit taxu leen woon a jóg bu leen taxoon a jóg Madinatul Munawwara la ñuy dem waaye xam na nit ñi ëpp ci ñi boom euh, Ousmane Ibn Affan kuufa la nu nekk ak Basra moo tax ñu jug rek jëm foofa ci lañ ànd dem bin eggee foofu ña ngi fa fekk euh, Ousmane Ibn Hunayf ndax diggante boobu toog na ñeenti weer di waajale yu demee noonu diggante bi nu rey Ousmane Ibn Affan ak bi ñuy préparé yooyu bay dem euh, Irak Irak ca Kuufa def na ñeenti weer kon fekk na Ali ibn Abi am na ku mu fa teg comme gouverneur muy Ousmane ibn Hunayf ñoom biñ ñëwee fekk fa Ousmane ibn Hunayf mu ni leen lu leen lu doon seeni tànk ñu ni ko li nu yitteel daal mooy lijjantik ñi rey Ousmane ibn Affan ñu rey leen ca noonu la ko Ali ibn taalib Talib dégg fekk ma nga Madinatul Munawwara Ali génn ànd ak euh, ñi ànd ak moom euh, ci ay soldaar ñu jëm Kuufa njëkk boobu sax am na ñenn ci ñi nga xam ne ñoo jiite woon ci ñi rey Ousmane ñu mel ne ay jabala ak ñeneen ak ñeneen moom ci boppam jabala boobu nga xam ne bokkoon na ci ñi rey Ousmane bokkoon ci njiit ya keroog bi ñoom Aïcha ñëwee ak euh, Zubayr ak Talha ak si Kuufa moom dajale na lu war a mat juróom euh, euh, téeméeri nit ay góor ñu jaamaarloog soldaaru Aïcha yi ak Talha ak Zubayr waaye ñu gañe leen ca xeex booba kon noonu lañ toogee ay fan yu néew ali ibn abi taalib jóge madina madinatul munawara ñëw kuufa ginnaaw bi mu déggee ni kat eh, ñoom ña nga fa ca ka ko wax nag mooy gouverneur am ba fa teg mooy Ousmane ibn Hunayf kon eh, ci la ali ibn abi taalib di ñëw waaye bi ñëwee ba àgg ci place bi ñuy wax eh, ziqaar dafa campé foofu àndoon nag lu war a mat fukki junni ay soldaar yoo xam ni ñu ngi xeex Ali ibn Abi Taalib bi mu ñëwee toll foofu diggante Ali ibn Abi Taalib ak ñoom euh, Aïcha li doxoon ci diggante bi mooy lan mooy Ali ibn Abi Taalib mooy ñoom Aïcha ak Zubayr ak Talha ñu nekk ci benn camp bi dañoo gisoon ni balaa xalifa di toog nanu lijjanti ñi rey Ousmane ñu rey leen ñoom loolu moo doon seen position Ali ibn Abi ni leen d'accord naa ci loolu ngeen wax ñu lijjanti ñi rey Ousmane ñu rey leen waaye nag mënuñoo lijjanti ñi rey Ousmane di rey leen te xalifa amul te loolu tamit nag mooy dëgg il faut xalifa toog ñu mën a lijjanti ñi rey Ousmane ibn Affan ñu mën leen a jàpp teg ci ñoom atteb l'islam kon loolu moo doon wuute ba du wuuteeg xalifa du wute maa war a toog kële ma war a toog kon du woon xëccoonte àdduna wala xëccoonte pouvoir wala xëccoonte pañetam àdduna saxaaba yi sori woon nan foofu mbir mi leen rek la woon mooy Ousmane ibn Affan boom nañ ko am kuréel gu taxaw ci saxaaba yi nii balaa kenn na nekk xalifa nañ lijjanti ki ko rey am beneen kuréel boo xam ne nee na euh, loolu war nañ koo def waaye nag il faut que mu am xalifa boo xam ni mooy jiite nit ñi ñu mën a topp ñi ko rey ñu rey leen benn par benn diggante ali ibn abi taalib ak aïchatul aïchatu umul muminin <coughs> jéggalu kon bi ali ibn abi taalib ñëwee ba ziqaar ñoom aïcha ak ñoom euh, talha ak zubayr nekk ca biir kuufa ali ibn abi taalib li mu njëkk a def mooy dafa woo almiqdaad ibn al aswad ak alqaqa ibn amr ni leen dem leen ngeen négocier ñoom aïcha ak talha ak zubayr su ko defee xëy na di ngeen àgg ci euh, gisin boo xam ne yéen ñëpp di ngeen ci dëppoo ci leen ñëw waxtaan ak Zubair ak Talha walillahi alhamdu ba ñoom ñëpp ñu dëppoo ca jataay boobu ni nag léegi kon dañuy arrêté xeex bi dañ koy bàyyi waaye euh, jamono jooju am na ay seytaane ñoo xam ne ay dong Abdullah ibn Saba lan ñu nekk ci biir soldaaru Ali ibn Abi Taalib jaxasoo ca ci kenn xamu leen te ñooñu fitna dong leen bëgg liñ bëgg tamit mooy xeex am euh, jàmm bañ a am te xam nañ ni waxtaan yii fa muy mujj mooy lan mooy dañuy dëppoo xeex du am ay jataay mooy toog mooy mooy am ak jàmm bin bàyyee ba guddi comme ni ko ibnul asir nettalee ci alkaamil fi taarix comme ni ko ibnu xazm indee ci alfisal fi milal wal ahwaai wal nihal ak ñeneen ak ñeneen ku mel ne at tabari ni mu ko indee ci taarixu tabari ku mel ne ibnu kasir ci al bidaaya wa nihaaya nee na bin toogee ba guddi nee na donga abdullah ibnu saba yooyu euh, beru waxtaan ñu ni léegi nu ñuy def ñu ni nan def ñaari kuréel kuréel bii na dem songu euh, soldaaru aïcha yeeg ñoom talha beneen kuréel bi songu ñoom ali ibn abi talib su ko ñee dinañ jàpp ni ñii ñoo leen song ñii jàpp ni ñii ñoo leen song ñu jàpp ni kon euh, respecté wu ni leen waxante woon dañ leen war xeex am bi ñu négee ba ca guddi ga ñu def noona ban ko defee ñu xaw a réussir ca lañ def ban songee Talha ak Zubayr jug ni waaw lu xew ñu ni soldaaru Ali yi ñoom ñoo nu song ñu ni ah xamuñu woon ni day ndek ndekete Ali dinañu wor ban songee Ali ibn Abi tamit ak soldaaram Ali ni waaw lu xew ñu ni soldaaru ñoom Talha yeeg ñoom Aïcha ñoo nu song Aïcha ni xawma woon ni day Talha ak Zubayr Aïcha dinañ ma war foofu la xeex ba tàmbalee ci guddi mu nekk xeex boo xam ne xeex bu tar la lu bëree bëree bari faatu na ca muy ak fitna goo xam ni euh, yàlla subhaanahu wa taala euh, xëy na bi xikmatihi ci la amee te ñoom ñëpp nag ci ak góor góorgóorlu dong lañ doon sukkandiku ci ak euh, jàpp ne li ñu nekk mooy dëgg muy ñaari kuréel yëpp mu am mu nekk xeex boo xam ne xeex bu tar la bi mu demee euh, ñu tàmbalee ci guddi gi ba tisbaar ñu demee ba nag la Aïcha wax Kaab ibn Sawr ni ko yëkkatil kaamilu alxuraan ndax xeex bi arrêté fekk boobu rey nañ lu bëree bëree bëree bari ci jullit ñi ci la Kaab ibn Sawr yëkkati mushaf muy ab kaamil alxuraan xam na ni bu ko yëkkatee rek xeex maam dina taxaw bi mu ko yëkkatee Ali ibn Ali ibn Abi Talib joxe eh, ndigal ni nan arrêté xeex bi waaye jamono jooju muy wax loolu ñu raaxaloo woon ci biir muy dong Abdullah ibnu Saba al yahudi boobu nga xam ne yàq dong fitna moo ko taxoon a jóg ci leen tàmbali nag dàkk Kaab ibnu eh, Sawr mi nga xam ne moo yëkkati eh, kaamilu alquran ñu jam ko ay ay fet mu daanu bi ñu ko jamee ay fet xeex bi tàmbaliwaat demaat ba jamonoy tàkkusaan jamono jooju nag comme Ali ibn Abi ci tisbaar ba tàkkusaan mi ngi wax nan arrêté xeex bi te mënta xeex bi mënta taxaw ci la euh, Ali ibn Abi yabal ay nit ni leen dem leen gileem gi nga xam ne ci la Aïcha umul muminin yéeg ngeen gor tànku gileem yi ndax mu ndax mu goor ngeen yëkkati néeg bi Aïcha nekk Aïcha te umul muminin ci ab gileem la nekkoon boo xam ni euh, dañ ko defal comme genre néeg boo xam ne dafa nekk ci biir néeg bi nekk ci kaw giléem gi loolu moo tax xeex boobu ñu tudde ko maarakatul jamal bi nu goree tànk giléem yi giléem gi goor ci la euh, ci leen yëkkati néeg boobu nag euh, pour muccal Aïcha radiyallahu anha ta ka santaane loolu mooy Ali ibn Abi Talib te ña doon def loolu ñam yónni woon kenn ka mooy Muhammad ibn Abi Bakar bi nga xam ni euh, rakko Aïcha umul muminin la ndax moo ko bokk benn baay Abubakar a leen jur waaye Muhammad ibnu Abi Bakar Ali ibnu Abi Talib moo ko yar moo taxoon mu nekk ci soldaaru Ali ibnu Abi Talib moo tax Ali moom la yabal ak keneen ci saxaabatul kiram ñu yëkkati néeg boobu yóbbu ci Ali ibn Abi Talib ndax ndax Ali ibn Abi Talib mën a euh, sauver Aïchatu ummul muminina radiyallahu taala anha wa an as-sahabati jami'an foofu lan arrêté xeex bi fekk ñi ci faatu faatu nañ ci ñi ci dee dee nañ ci mbir mi metti lool ali ibn abi taalib moo tax bi xeex bi jàllee mu tàmbali di xool ñi nu rey mu gis talxa ndakata rey nañ ko ci biir xeex bi muy saxaabu baax bokk ci asham bashirina bil janna mu gis zubayr ibn awaam ndakate faatu na ci muhammad ibnu talxa ndakate faatu na ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ali ibn abi taalib jooy ali ibn abi taalib jooy radiyallahu taala anhu ginnaaw googu ci la wax ni atadkuru anna rasul allahi sal allah alai sallam qaala tuqaatilu caliyan wa anta zaalim tuqaatilu caliyan wa anta zaalim maam loolu la wax zubayr ibn al-awaam ndakate yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na zubayr ibn al-awaam ni ko kat fitna dina dox sa diggante yow ak Ali ibn Abi Talib waaye jamono jooju yow yaay nekk ci tooñ Ali ibn Abi Talib mooy nekk ci dëgg Ali ibn Abi Talib nag xelam dem ca dem ca loola waaye tamit xelam demaat na ca la ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon wax jooju mu wax noonu ci yonent bi wax jooju mu doon wax ci Zubayr ibn Awwam mi ngi ci musannaf ibn Abi Shayba euh, ibnu Hajar encore inna ko ci al matalibul aliya waaye nag càllale ga dafa dafa xaw a am ay yëf yëfaan lu ci tax suuf moo tax ñenn ñu bari sax ci borom xam-xam xadis danoo ne xadis boobu wérut ndax euh, dafa am waaju ci nekk joo xam ni kenn xamu ko majhul la kon euh, xeex ba foofu la mujj arrêté Ali ibn Abi ci boppam jël Aïcha jox ko giléem boole kook ay soldaar jox ko alal boole ko soldaar yu ko garde mu jóge Kuufa ba Madinatul Munawwara demaat këram toogaat ci jàmm ñooñu doogay wàññeeku ñëwaat ci ali ibn abi talib kon loolu lu muy tekki mooy lan euh, ñoŋal goo xam ne ali ibn abi talib bëggoon na ko ñoŋal aïcha radiallahu anha parce que xam na ni xam na ni yaayam la te li doxoon fitna la du woon jël at wut àdduna du woon xëccoo nguur waaye mooy lan mooy kenn ku ci nekk ci ñoom da jàpp ni yaa ngi ci dëgg kii jàpp ni Ousmane dañ koo rey nun mën def war nañ koo fayul kii jàpp ni naa war nañ koo fayul waaye nag nun man xalifa taxaw ba pare xalifa boobu mën a jéem a dox ci nu ni fayule euh, Ousmane ibnu Affan waaye euh, seytaane euh, bëgg na coow am ay nitu fitna encore ñi ngi ci biir raaxaloo ci te kenn xamu leen ñooñu it bëgguñu jàmm am ba lafa fa xew-xew fa loolu mu amoon ci loolu ñu tuddee maarakatu jamal muy fitna goo xam ni ahlu sunnati wal jamaa dañuy jàpp ni ñoom ñëpp ci góor góor la nekkoon ñi ci nekk ci njuumte te doonoon ni ñi ci nekk ci njuumte mooy côté Aïcha ñooñu am nañ benn fay ñi ci nekk ci dëgg te mooy côté Ali ibn Abi Talib ñooñu am nañ ñaari fay kon eh, xeex boobu noonu la noonu la noonu la deme woon su ko defee da gis ni beneen bi nga xam ni moo amoon atum 37 te doxoon ci diggante Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu ak Muawiya ibn Abi Sufyan boobit naka la demee mooy Ali bi mu toogee muawiya dañ ni ko ali ibn abi taalib nee na nga jaayante fekk boobu muawiya mi ngi Sham mooy Syrie nekk xalifa parce que foofu la ko Ousmane tegoon mu nekk xalifatul muslimin muawiya ni naka lay jaayanteeg ali te lijjanti wunu kuray sama doomu baay muy Ousmane ibn Affan ndax doomu baay taxam la mu ni man duma jaayante kenn lu dul danoo lijjanti wala ñu wax ma ñan ñoo rey Ousmane ibn Affan bu boobaa nag ku may jaayanteel ma doo koy jaayanteeg moom Ali ibn Abi Talib ni ko déedéet dinañ lijjanti ñi rey Ousmane te ñu ngi koy lijjanti donte xamagun ko wala jàppagun leen waaye euh, bu xalifatul muslimin taxawee dafa war nga jaayanteeg moom Muawiya bañ ni du jaayante euh, dajale waa Sham xutba ni leen nag rey nañ Ousmane ndax yéen pare ngeen pour euh, mën a fayul Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu ci ñi ko rey ñoom ñëpp ñu dajaloo nekk benn ni ko ñun ñu ngi ci sa ginnaaw mu doogay xam ni nag kon moom it euh, am na doole mu ni kon man bala ma jaayante kenn damay euh, jot deretu Ousmane ibn Affan radiyallahu taala anhu wa an as-sahabati loolu kon mooy coow boobit mooy taxit mooy coow bi dox ci diggante Muawiya ibn Abi Sufyan ak Ali ibn Abi Talib kon gis nga li lépp ba léegi àdduna dugg ci euh, euh, xëccoo nguur dugg ci lenn dugg ci li ci nekk rek mooy xilaaf ba amoon wuute ba amoon ca diggante ñoom Aïcha ak Ali xilaaf boobu ci boppam moo ñëwaat nanu jaayante ginnaaw gi ñu lijjanti ku rey Ousmane déedéet nañu lijjanti ku rey Ousmane buñ paree ñu jaayanteeg Ali parce que ñoom ñëpp xamoon na ne Ali ibn Abi Talib mooy ki gën a yey ci xilaafa gi waaye nag li nu bëggoon mooy ñu lijjanti ki rey Ousmane ibn Affan te nag lijjanti ko du yombe noonu lijjanti ko du yombe noonu ndax ñooñu ñoo ñëwoon boromi mbooloo lan nekk ñu am doole te am ay euh, nit ñoo xam ni ñi ngi ci seen ginnaaw am ay euh, kuréel ak ay euh, dëkk yoo xam ni sax ñi ngi ànd ak ñooña ndax fitna gi nga xam ni Abdullah ibn Saba ah, tasaare na ko ci ci jullit ñi kon noonu la mbir mi demee Ali ibn Abi Talib ni kon dafay préparer soldaar boo xam ni force mu Ali ibn Abi Sufyan dina jaayante jamono jooju fekk na Ali ibn Abi Talib tuxal na euh, capital bi jële ko Madinatul Munawara yóbbu ko Kuufa ci la Ali ibn Abi Talib préparé soldaaram muy soldaar bu bëree bëree bari ànd ñoom jëm Sham muy dëkk ba nga xam ni ca la Muawiya ibn Abi Sufyan nekk bi mu ñëwee nag ci ba benn place bu ñuy wax Siffin ci atum 37 ci gàddaay gi ci la dajeeg nag soldaaru Muawiya ibn Abi Sufyan foofu la xeexu Siffin amee ci diggante soldaaru Ali ibn Abi Talib ak soldaaru Muawiya ibn Abi Sufyan moo tax ku mel ne Abu Daawuda mi ngi génne ci sunanam mu jële ko ci Qays ibn Abbad mu ni eh, Qays ci boppam ni waxoon naa Ali ibn Abi Talib ni ko ah أخبرنا عن مصيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله أم رأي رأيته قال ما عهد إلي رسول الله شيئا ولكنه رأي رأيته Qays ibn Abbad nee na keroog ba Ali ibn Abi Talib génnee Kufa ni ko dafay dem xeex jeeg Muawiya nee na dama koo téye ni ko lenn rek laa bëgg a xam man bala maa ànd ak yow di xeexe wala may toog di ñàkk a dem dama nay laaj ndax lii nga bëgg a defi yonent bee la ko digal wala euh, gis boo gis la muy ak góorgóorlu ak ictihaad boo xam ni euh, toujours ab njiit ak boroom euh, kuy jiite maam am na droit gis loo jàpp ne lu mu jàpp ne xëy mooy maslaha muy nan ko def Ali ibn Abi ni ko du lu ma yonent bi sallallahu sant waaye lu ma gis nii mooy lu war la moo tax ma jóg war koo def moo tax Qays moom toog demul ca xeex ba léegi dangay ngay gis ñu bëri dañuy wax naan Muawiya ibn Abi Sufyaan da doon xëccanteeg Ali ibn Abi Taalib ak nguur loolu du lu wér boo demee ci texte sunna yi tamit di nga xam ne loolu mooy li am lu mel ne Abu Muslimul Xawalaani nee na benn bis dugg naa ci Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhu ma ne ko ndax yow da ngay xëcceen toog Ali ibn Abi Taalib xilaafa gi ndax yow yow ak ali yéen a tolloo te ali gën la foofu nee na Muawiya ne ko laa wallahi inni la aclamu anna aliyan afdalu wa axaqu bil amr walakin alastum taclamuuna anna usmaana qutila madluman wa ana bnu cammihi wa ana atlubu bidamihi faatuu caliyan faquluu lahu falyadfac ilaya qatalata cusman wa usallimu lahu alumuura fa ataw caliyan fa kallamuuhu fa abaa calayhim walam yadfac alqatala li mu ngi ci taarixul islam ak ahadul xulafa ar-rashidin nee na bi mu waxee loolu Muawiya nabi Sufyaan Muawiya daf ni ko man day maa ngi wàcc yàlla ne xam naa ne Ali moom a gën moo a gën a yelloo tamit ci mbir mi waaye yéen day xam ngeen ne Ousmane mi Affan dan koo rey te dañ koo tooñ te xam ngeen ne ni ma mel moom ndax sama doomu baay la baayam ak sama baay ñoo bokk ñu bokk ci banu Umayya te xam ngeen ni man dafa yey ci man ma war a eh, laaj aqam ak deretam ñi ko tuur kon nag dem leen ci Ali ibn Abi Talib ngeen ni ko loolu dong laa soxla soxla ma nguur lii waxu Muawiya ibn Abi Sufyan la waaye eh, fekk na tamit fitna eh, taxaw na ba pare donte bi Ali ibn Abi Talib jugee Kuufa ba dajeeg soldaaru Muawiya ci Siffin ñu négocier tuuti mënta sotti far yàlla def xeex am waaye bi xeex bi amee danoo dem tamit kenn gañewul soldaaru ali gañewunu soldaaru muawiya gañewunu dañuy wax ni ali ibn abi taalib keroog bi muy ñëw ànd nag loo rama téeméeri junniy soldaar muawiya ànd ak juróom ñaar fukki junniy soldaar mais Ali ibn Abi Talib moo nekkoon ci dëgg encore foofu comme coowam na Aïcha nam nekkoon ci dëgg lu tax loolu mooy Ammar ibn Yaasir dafa bokkoon ci soldaaru Ali ibn Abi Talib te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne wér na ci Buxaari wér na ci Muslim nee woon na yaa Ammaaru sa taqtuluka alfiatu albaagiya yow Ammaar euh, kuréel bi nga xam ni moo jalgati moo tooñ kuréel boobu mooy bilay lay moo tax keroog bi ñu reyee Ammar ibn Yaasir ci kuréelu Muawiya eh, ci kuréelu Ali ibn Abi Talib ci lañ xam ni kon Ali moo ni ci dëgg donte ban waxee loolu eh, Muawiya ibn Abi Sufyaan dafa ni déedéet Ali ibn Abi Talib ci boppam moom moo rey Ammar parce que moom moo ko fa indi bi dafa ni qatalahu alladi ata bihi gis nga loolu it déggin la loo xam ni Muawiya da koo dégg ak ña àndoon ak Muawiya kon moo lay won ni demewunu woon bakkan waaye ay eh, xëy na ta'wil ci lan doon demee imam Ahmad ibn Hanbal doon na wax eh, mu ne xadis bi bi wax ni yonte bi di wax ni taqtuluka alfi'atu albaagiya qaala laa atakallamu fiihi tarkuhu aslam kama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qatalathu alfi'atu albaagiya wa sakat kon ki gën a yey ci xilaafa gi ki nekkoon ci dëgg ci coow loolu nee naa la jumhur ahlu sunnati wal jamaa nee nañ mooy ali ibnu abi taalibin radiallahu taala anhu moo tax ibnu xajar al asqalaani sax ci fatxul baari dafay wax naan ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة nee na mbooloom ahlu sunnati wal jamaa dëppoo nañ ci ni ñi nekkoon ak Ali ibn Abi ñoo ne ci dëgg kon euh, coow am na njumte am na am na euh, foo xam ni euh, fa la dëgg ga féete am na foo xam ne fa la njum ga féete waaye nag ci gisuñu ahlu sunnati wal jamaa danoo gis ni Ali ibn Abi moo nekkoon ci dëgg Muawiya ibn Abi Sufyan ak góorgóorlu la def waaye ci ak njumte la nekkoon loolu mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa wallahu taala kon xeex bi noonu la continué moom it bi mu demee ba moomit ñu bari faatu ci ñu yëkkati alquranul karim ñu arrêté bi ñu yëkkati karim ñu arrêté ñu ni nag kon nañu toog waxtaan ñu ni nañu toog waxtaan ñuy waxtaan ñu ni déedéet ali ali ibn abi taalib dangay yebal kenn Muawiya yebal kenn déwén ñu mën a toog waxtaan kan la def xalifa ak kan la ñuy samp Ali ibn Abi Talib yebal ko ñuy wax Abu Musa al Ash'ari Muawiya yebal Amr ibn al Aas ngir ñu war a daje Euh, at bële di ñëw pour mën a waxtaan kan moo ne ci dëgg ak lan lan war a lan lan lan war a dëppoo ñu euh, d'accord ci loola ñee dem ñi la dem pour ñu war a xaar euh, rendez-vous bi nga xam ni ci la Abu Musa al Ash'ari war a représenté Ali ibn Abi Talib Amr ibn As yi nga xam ni fekke nan xeex boobu muy xeexu Siffin fekkewaal tamit xeexu Jamal muy bi amoon diggante Aïcha ak Ali yi histoire la yoo xam ni suñ ko nettewul nii ci anam ji nga xam ne mooy bi wér noonu lislaam yi dinañ ci dugg nettali ko ci anam joo xam ni bu wérul la te bu boobaa dinañ la ko joxe ci anam boo xam ni di nga bañ saxaaba yi wala ñu dugal ci loo xam ni bokku ci bu boobaa nga jàpp ne loolu la am la fekk amul moo tax yi demee ni leeral ko ba mu leer ci anam joo xam ne bu wër la teg ko ci ay textes yu wér dafay war sax nag ci ci jullit mu xam ko ci saxaaba yi xeexoon bokk na ci Ali ibn Abi Talib bokk na ci Zubair bokk na ci Talha bokk na ci Aïcha bokk na ci Muhammad ibn Zubair bokk na ci Al-Hasan Ali ak Husayn ibn Ali bokk na ci Yasir bokk na ci Abdullah bokk na ci Muawiya ibn Abi Sufyan bokk na ci Amr ibn al-As bokk na ci Qays ibn Sa'd bokk na ci Al-Qa'qa' ibn Amr bokk na ci Jarir ibn Abdullah bokk na ci Khuzayma ibn Thabit bokk na ci Abu Qatada bokk na ci Abu Haytham bokk na ci Sahl ibn Sa'd bokk na ci Jabir ibn Abdullah ak Abdullah ibn Ja'far ak Adi ibn Hatim ak Al-Ash'ath ibn Qays Jariyat ibn Qudama Fudalat ibn Abd ibn Ubayd ak an-Nu'man ibn Bashir ñii ñëpp bokkoon na ci ñi nga xam ni bokkoon nañ ci xeex bi ci saxaaba yi ñii àndoon ak Ali ibn Abi Talib ñii ànd ak euh, Muawiya ibn Abi Sufyan waaye am na ci saxaaba yoo xam ni ñoom danoo retiré wu ni ñoom ànduñoo fii ànduñoo fii parce que gisaguñu ku ci ne ca dëgg ñoom ñu neutre noppi ma sori fitna ga ñooñu ñu bëree bëri bëri la ñu ëppoon sax nag ci saxaaba ya ndax soldaar yooyu ngay gis ñu ci bëri du doon ay saxaaba bokk na ci ñooñu ku mel ne Saad ibn Abi Waqaas dafa boycotté àndul ak Muawiya àndul ak Ali dem toog jàpp ñàmburam naka noonu noonu la Saïd ibn Zayd def noonu la Abdullah ibn Omar def eh, ibn al-Khattab noonu la Muhammad ibn Maslama def noonu la Osama ibn Zayd def noonu la Abu Hurayrata def Zayd ibn Thabit noonu la def Imran noonu la def Anas ibn Malik noonu la def abu bakrat as-saqafi noonu la def al ahnaf ibnu qays noonu la def abu ayub al ansaari noonu la def abu musa al ashari noonu la def abu mas'udin al ansaari noonu la def al walid ibnu uqba noonu la def said ibnu al aas noonu la def abdullah ibnu amir noonu la def abdullah ibnu amr ibnu al aas noonu la def donte baayam àndoon ak muawiya gis nga abu musa al ashari moom la ali yónni woon ànd ak loolu dafa boycotté woon abu barzat al aslami dafa boycotté ahbal ibnu euh, sayfi noonu la def salamat ibnul akwa dafa boycotté ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen min alsahabati ridwanullahi taala alayhim ajmain kon da gis ni ñetti xaaj lan woon xaaj bi ci saxaaba yi ànd na ak ali te xaaj bii ci saxaaba yi ànd te ñu néew leen woon xaaj bi danoo boycotté sori fitna gi te ñu ëppoon kon Euh, rendez-vous ban joxante woon ci xisatu taxkim pour war a atte li dox ci diggante Muawiya ak Ali jot na Abu Musa al Ashari jóge Kuufa ñëw Amr ibn al Aas jóge Shaam ñëw ñu dajaw bi ñu dajaloo waxtaan fa waxtaan boo xam ni téere yi sunna yu yi indi nañ ko waaye njëkk may indi boobu day gis ni dangay gis ci yenn nett yoo xam yu siiw la loo xam ni wérut ndax ka ko nettali di ab chii euh, muy abu mixnaf moom ci qissaam dafa ni abu musa al ashari ak muawiya dañoo taxaw bi ñu waxtaane abu musa génn ñëw ak amr ibn al-aas amr ni ko léegi daal nenn lay def dangay ngay wàcce ni wàcce naa ali man ma ni wàcce naa muawiya julli ñu xool ku leen neex ñu tànn ko ne Abu Moussa ni ko waaw d'accord naa bi génnee ci mbooloo mi Abu Moussa Ash'ari ni man euh, wàcce naa Omar euh, Ali ibn Abi Talib nekkatul xalifa comme ni ma roccee sama jaaro bi wàcc nee na Amr ibn Aas yéeg moom it ni man wàcce naa Ali ibn Abi Talib comme ni ko Abu Moussa wàcce waaye nag fal naa Muawiya ñu ni coow la jug nit ña tasaaroo mbir ma deme noonu loolu Euh, du lu am du lu am lu soreeg li am la benn càllale googu wérut ndax nenaal abu mixnaf moo ca nekk te kazaab la beneen ba mooy xalifatul muslimin ki jiite julli ñi kenn du ko wàccee noonu lu benn nit mooy ñëw wàcce ko wala yéeme noonu déedéet loolu simple na trop kon abu musa ashari amul benn euh, pouvoir bu mën a wàccee ali ibn abi talib boo xam ni danoo jaayanteeg moom beneen bi ci des mooy nag nettali yu wér yi li mu wax mooy euh, keroog ca euh, euh, détail ba amr ibn al dafa dajeeg abu muusa ashari mu ni ko loo xam ci mbir mi abu muusa al ashari ni ko li ma xam daal mooy ali ibn abi taalib mooy ki ko yeyoo su mu Muawiya nag ngir mu jàppale ko wala mu jox ko dara pour mu jiite ko ku gënoon Ali ibn Abi Talib jëloon na Muawiya mu jàppale ko ci liggéeyam mu yonente bi sallallahu alayhi wa mooy ba nekkee katabatul waxyi ak ku mel ne Omar euh, Omar ko defee gouverneur ca Cham ni saa ko bàyyee jëlu ko tamit pour mu jàppale ko ci xilaafa gi defu ko gouverneur defu ko dara bu boobaa tamit am na ku gënoon Ali ibn Abi Talib bàyyi woon na Muawiya defu ko gouverneur defu ko dara kooku mooy kan mooy yonent bi sallallahu wa sallam ak Abubakar ni Siddiq kon ñu ni ni def ñu def daal mooy lan mooy euh, jaayanteeg Ali ibn Abi Talibin radiyallahu taala anhu te jéem a lijjanti nag ñi rey Ousmane ibn Affan ñu rey leen kon li ma doon position euh, Abu Moussa al Ash'ari ci lan d'accord kon Ali ibn Abi Talib mooy nekk xalifatul muslimin waaye nan bàyyi Muawiya moom mu yore Sham jiite ko nga xam ni eh, ay ordem du jóge ci Ali ibn Abi Talib waaye nag Sham ci boppam muy Syrie fa nekkoon moom foofu moom moo ko jiite feneen fi ci des yépp muy goxu jullit ñeeg fi lislaam àgg Ali ibn Abi Talib jiite ko nekk xalifatul muslimin ci loolu lañu dëppoo eh, ndax ci loolu lan mënoon a ànd ci loolu lan tamit lan mënoon a euh, bennowe ñu dëppoo ci loolu mbir ma jeex kon nii la xissa ba demee woon euh, ñetteelu xew-xew bu mag bi xewoon ci xilaafatu ali ibn abi mooy bi amoon ci atum 38 ñu koy ma maarakatu nahrawaan muy xeex bi amoon ci diggante ali ak ñoo ñu tudde ñooñu nga xam ni keroog bi ali ne Eh, day yabal abu musa al ashari muawiya yabal amr ibn aas pour ñu toog d'accord ci dara ñoom seen déggin bu gàtt ci diine nga xam ne ci soldaaru ali leen bokkoon danoo mer ni kon yow daal ali da ngay attewoo leneen lu dul alquran te laa xukma illa lillah ñu tàmbali nag eh, gàddaay ali ibn abi taalib gedd ko génn dem ci benn dëkk bu ñuy wax xarura dajaloo foofu ñëppoon ci ñoom ay jàngkatu alquran lan woon mais euh, seen déggin ci diine moo desoon moo tax Ali bi Abi Talib bi ñu ko waxee loolu ñu ne ko ñii kat dañ laa euh, mere ndax nee na attewoo ci alxuraan lu dul di attewoo ci ay nit Ali Ali ibn Abi Talib daf leen kalimatu xaqin urida biha batil mu ni liñ wax day waxu dëgg la waaye lan kenn namm ak neen la alquranul karim la ñuy attewoo waaye kenn di jël alquranul karim alquranul karim du wax kon ay nit ñu dégg alquranul karim ñoom ngay jël ñu àttewu moo tax Ali ibn Abi Talib euh, keroog dafa sax tegtaloo ci waxu yàlla subhanahu wa taala bi wax naan mu ni wa in xiftum shiqaaqa baynihima fab'athu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaahan yuwaffiq illahu baynahuma inna allaha kaana aliman xabira ci sot nisa yàlla bi wax naan coow bu amee ci diggante góor ak soxnaam nee na euh, na ngeen wut ku xereñ ku amum xam-xam ku amul dégg ci mbokk ku góor gi ku góor ki ak ku amum xel ku rafetum xel ci mbokk ku jigéen ki ñu toog waxtaan su ko defee jàmm mën a am mu ni su fekkee ni lii yàlla da koo bëgg ci góor ak jigéen fa kayfa ci kuréelu jullit ñi ak ci loo xam ne ci xilaafa la moo tax Ali ibn Abi ginnaaw loolu dafa woote ci biir Kuufa ñu bare bëree bëri ñëw bi mu mu ne leen léegi sama diggante jéem alxuraanu karim bi léegi alxuraan na wax nag àtte ñu kan mën a ci dëgg ñu ne ko xam nga ne alxuraan bi du wax xam ngeen ne alxuraan bii du wax yow Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ne leen kon kazalik suñ ba bëgg àttewoo ab yàlla ci eh, li yàlla bëgg ko yonentam dañuy seet ñi xam li yàlla bëgg ko yonentam ku mel ne Abu Musa al ah ñu yebal ko ngir ñu mën a àgg ci li yàlla bëgg ko yonentam waaye taxul euh, ñu fetteerlu dégguñu loolu génn dem ca dëkk boobu nga xam ne mooy xarura ñu dajaloo fa nekk fa xaw bari lool sax ëpp leen ay junni Ali ibn Abi Talib yónni fa Abdullah ibn Abbas pour mu war a waxtaan ak ñoom Abdullah ibn Abbas keroog bi mu demee toogook ñoom di waxtaan ak ñoom ci euh, loolu ñu jàppoon ba tax ñu beddeeku di leen xamal teg ko ci alxuraan teg ko ci sunna njëkk mu fay jógee te def na fa ñetti fan ca ñoom njëkk mu fay jógee yóbbaale na lu war a mat ñeenti junni ñoo xam ni danoon ni ko yéen daal nekk te yéen a nekk ci dëgg yow ak Ali ibn Abi Talib ñu ànd ak Abdullah ibn Abbas delluwaat ci Ali ibn Abi Talib am na ñoo xam ne ñoom des nañ ca ba léegi ci la Ali gis nag ni nag kon mënta ñàkk nag ah ñu jaamarloog ñoom ci lañ leen fekk ca euh, seen bërëb yooyu xeex ak ñoom yàlla subhanahu def euh, kuréelu Ali ba gañe leen ñu tasaaroo ñii ñu rey leen ñii euh, delsiwaat ñii dem ci yeneeni gox waaye yàlla subhaanahu wa taala daal euh, arrêté mbooloo moom nga xam ni moo judduwaatoon ngir noonoog ali ibn abi taalibin radiallahu taala anhu kon ñetti histoire yi mooy yi gën a siiw ci jamonoy ali ibn abi taalib bi amoon digganteem ak aïcha ak bi amoon digganteem ak muawiya diggante boobu nguur taxul woon adduna taxul woon waaye muawiya ak aïcha ak Eh, gisoon li nu gis danoo gisoon ni eh, Ali ibn bi Talib day moo gën a yey ci xilaafa gi waaye nag nanu lijjanti ki rey Ousmane ñu rey leen Ali ibn Abi Talib gisoon ni loolu di dinañ ko def waaye bala ñu koo def il faut ñu am xalifa te comme jaayante na nag xalifa jullit ñi jaayanteeg moom danoo war a jaayante ba pare doog a lijjanti koy Ousmane ibn Affan amma nag diggante Ali ak xawaarij yooyu ñooy ñoom ñàkk dégg diine moo leen yóbbu woon ci fitna yooyu ñu defoon euh, ba tax ñu génn topp amirul muminin ali ibn abi talib radiallahu taala anhu loolu mooy sabab bi waral wuuteem digganteem ak muawiya mooy sabab bi waral wuuteem diggante aisha ak talha ak zubair ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo àndoon ak ñoom léegi mu des Ali ibn Abi dundaat fi ay at ñaari at ñu rey ko ka ko rey di Abdurahmaan ibn Muljim te bokkoon kenn ci xawaari yooyu nga xam ne ñoom la Ali eh, doon jaamarloog ca maarakatu Nahrawaan waaye kooku mooy ki boom Ali ibn Abi Talib ko leer la woon ci sun émission bii weesu nga xam ni eh, dañuy wax ni sax ñooñu bokkoon nañ ci ñi rayoon Ousmane ibnu Affan radiallahu taala anhu waaye lan mooy position ahlu sunnati wal jamaa lan mooy position jullit ñi ci kiray Ali ibn Abi Talib position jullit ñi ci kiray Ali ibn Abi Talib ak kiray Ousmane ak kiray Zubair ak kiray Xuseyn yépp ñoo ci yem mooy ñoom ñépp ay nit ñu yées lan ay nit ñu bon lan def nañ bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy mooy kiray Ousmane mooy kiray Ali Abi Talib dafay wax naan ibnu muljim indana mimman narju lahu naara nee na ibnu muljim mi lay ali ah ñi ngi mébét yàlla dugal ko safara wa nujawizu an allaha yatajaawazu anhu donte yàlla mën na koo jéggal mu ni wa xukmuhu huwa xukmu qaatilu Ousmane wa qaatilu Zubair wa qaatilu Talha wa qaatilu Saïd ibn Jubair wa qaatilu Ammar wa qaatilu Xaarija wa qaatilu Xuseyn nee na atteem nag moom Abdurahman ibn Muljim mi rey Ali atteem yeesul attey ki rey Ousmane yéesal attey kiray Zubayr ak kiray Talha ak kiray Saïd ibn Jubayr ak Ammar ibn Yaasir ak Xaarija ak Xuseyn ibn Ali ñooñ ñëpp ñooyem benn atte mooy ñu bon lan ñu yées lan loolu euh, al imaamu Zahabi moom la wax ci téeréem moom mu tuddee taarixul islaam mu ni fa kullu haulaai nabra'u minhum wa nubgiduhum fi llahi wa nakillu umuurahum ila allahi tabaraka wa taala mu ne ñëpp ñun danoo dañ ci ñoom dañ leen bañ te nag seen mbir moom dañ koo bàyyi yàlla subhaanahu wa taala yàlla nag bu ko neexee mu jéggal leen bu ko neexee mu mbugal leen waaye ci yàlla subhaanahu wa lay dellu kon loolu mooy position jullit ñi mooy ñooñu nga xam ni danoo rey saxaaba yu baax yooyu dañ leen di dénoncer kon mbokk yi eh, Ali ibn Abi Talib ci boppam li amoon ci fitna yi nekkuloon lu ko neex même Xasan ibnu Ali keroog bi papam di génn Ali bi Abi Taalib jóge Kuufa di jëm euh, Saam ba dajeeg Muawiya ci Siffin Xasan ci boppam bi papam préparé bay dem daf ko ni papa toogal bul dem daf ko ni papa toogal bul dem waaye euh, papam gisoon na ni dem mooy intérêt mooy maslaxa moo tax keroog bi mu demee ba fitna ba am xeex ba am ñetti faatu faatu ca papa jëf ni ko doom sama waxoon nga dëgg mu ne ko wallahi ma zanantu anna al amra ila dhalik mu ne ko xawma woon mbir mi dina àgg fii waaye su ma ko xamoon day ba ne ma bul dem duma dem loolu mi ngi ci musannaf ibn abi shayba waaye fitna googit bi mu continuer ci jamonoy ali ba ali ñu boom ko ci atum quarante nit ñi jaayanteeg xasan ibnu ali pour mu war a nekk xalifa waaye ba léegi ñi àndoon ak Muawiya ñi ngi ànd ak Muawiya jàpp fa nu jàppoon xasan ibnu ali xam na ni fitna la boo xam ne day continuer rek mu ni nag kon moom ni muy def mooy day woo Muawiya ñu toog waxtaan mu jël xilaafa gi jox ko Muawiya ibn Abi Sufyaan ndax baayam la euh, te expérience bi mu am ci jiite moom Xasan ibn Ali amu ci la woo Muawiya ibn Abi Sufyaan jullit ñëpp dajaloo mu ni Muawiya yow yaa gën a yey ci xilaafa gi jël ko ñu tudde ko amul jamaa muy année bi nga xam ni ci la jullit ñi dajaloo dajaloowaat xol yi àndaat tattawaat jàmm ñëwaat noonu lislaam yeeg nitu fitne ya eh, lan bëggoon yàlla subhanahu wa arrêté ko waaye nag loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon nañu ko jamono jëmiy dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon nañu ni Xasan ibnu Ali dina defar diggante ñaari kuréel yu rëy rëy ci kuréelu jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci Sahih mu ni inna ibni hada sayyidun ولعل الله an yusliha bihi bayna taifatayni min almuslimin nee na sama doom jii day sama sët bii muy xasan nee ab sangala de te amaana ni yàlla subhaanahu wa taala dina jubóole ci sababam ñaari kuréel yu rëy ci kuréelu jullit ñi moo amoon muy kuréelu ali abi taalib ak kuréelu muawiya ibn abi sufyaan ki leen boole leen ñu àndaat nekk ay mbokk nekk ay ixwaan mooy xasan ibnu ali radiallahu taala anhu ci amul jamaa muy atum kon euh, nii la mbir mi demee kon mbokk yi euh, loolu mooy mbir yi am ci jamonoy ali ibn abi talib incha allah rabbi sun émission yii di ñëw dina dugg ci euh, xasan ibnu ali radiallahu taala anhu ndax xasan toog na ci xilaafa gi waaye xilaafa gu gàtt la ndax bi bàyyam faatoo nit ñi jaayanteeg moom juróom benn weer rek la toog bi mu toogee loolu mu gis ni nag li mu war a def mooy dajale Muawiya euh, yéwénal diggante bi jubóole euh, jullit ñi jël xilaafa gi jox ko mu Muawiya waaye xilaafaam googu muy juróom benn weer yooyu mu ci nekk njëkk ma ko jox mu Muawiya incha allah rabbi ci sun émission yii di ñëw ci kanam dinañ ci leeral bala ñuy dugg ci muawiya ak ñeneen ak ñeneen ñi ci topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu